day jeex amul dossier judiciaire bu ñu mënul taxawal. mais nan lañ koy jeexalee. ah da may laaj nag <laughs> amul dossier judiciaire bu ñu taxawal si ñetti fan ñeenti fan amul bu mënul taxawal mboog si weer. mais nan lañ koy jeexalee. yomb na. naka du dara. mox ah. la ko. ah déglu bu baax li ma lay wax nag. Hmm. man waxuma dara lu dul xam-xam. si ko mën a weddi dañoo weddi ko ma jàng si kooku man li may wax njàng la. koo mën a jàngal ñëw wala jàngal ma ma yokk sama xam-xam loolu rek laa bëgg dégg man ñu yokkal ma dama ne xam nga luy justice hmm. la loi et la constitution dit les lois qui organisent la magistrature qui organisent la justice disent que le juge est fait pour appliquer la loi la loi est votée par l'Assemblée nationale et c'est l'Assemblée nationale qui fixe les délits lu dëgg hmm. dans la loi c'est nit ku ñu àtte si loi bu mu mënti doon. bu assemblée nationale di ne loi boobu àtte bi jeex na kooku principe de droit la boo xam ne ñu ko jàng xam ne ni mu tekki laajal professeur de droit yi. alors on me ma ne déglu ma amul on me dit naay wax fi mu nekk ki la wax mën naa xamul lu muy wax du ma di me dit nanguwuma ko wax ma rek yow. waaw article 52. bu ma waxati article dama lay wax principe de droit ba pare article toppatoo ma ko da nga ma laa wax amul benn article bu mën a bu yox nañ ko dañ koy dindee maa lay wax nañ koy dindee. dégg allez-y lañ lay wax fii réglé wul dara on me di on on on on nañ jàng si bàyyi seen on yi lépp xam nga ki la wax tuddul ba léegi la relation entre le parlement et la justice waxu ko. Ah, ok lu mu wax. wax ma li mu wax entre le parlement et la justice. article cinquante deux. bu loi organique bu assemblée bu loi article cinquante deux. bu parlement euh, bu bu règlement intérieur bu assemblée nationale nee na règlement intérieur assemblée nationale biir assemblée la bokkul justice bokku ci. toutes les procédures non non non je regrette bokku ci rek bul sonal sa bopp. waaw allez règlement intérieur assemblée nationale nga may wax ak la justice. kooku euh, député bi naka lay yendoo naka lay toogee si taabalam naka lay fale beneen député bi si biir loolu règlement intérieur assemblée national bokkul si lii bul sonal sa bopp bu sa temps buñ la ko yàqal nga baal ma sa temps buñ la ko yàqal. nañ jàngi moo gën li ñu def ci nan lañ mën a annuler tout ça loolu daal bu ko wax da nga may andil waxu caaxaan yi ma ngir yàlla déglu ma ma wax loolu ñu xamul dama ne la bu neexoon président de la république parce que neex na ko mu def ko si faneen ak faneen bu ko bëggoon tey il prend une loi il convoque l'Assemblée nationale en urgence il supprime le délit de corruption à la jeunesse déglu ma sañ na ko et l'Assemblée le lui vote xam nga tax. waxtu woowu ñëppay wote loolu. parce que boo ko supprimer waa ji kenn dootu condamnation bi jeex na c' est effacé c' est cette loi cette vote qui efface la condamnation de plein droit parce que le délit n' existe plus on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour un délit règle de droit laa lay jàngal baal ma soxna si àggoo foofu àgguma si presse man fi may wax nii àggoo fa dimbali ma rek ngir yàlla nga déglu ma la dugal si ay erreur assemblée nationale bu voté loi tey sañ na ko assemblée sañ na ko loi yi ñuy àttee nit ñi yépp assemblée nationale ko wotee sañ na woote loi ëllëg ne supprimant le délit de corruption de la jeunesse muy benn jeex na projet bi jeex na tak benn alors ça devient impersonnel et général oui. et ça s'applique à tout le monde. tout le monde pas seulement non dama à tout le monde le délit n'existe plus. donc ku ñu condamné woon. ci dossier boobu est-ce que mos nga dégg sax ku ñu si corruption à la jeunesse. c'est la bon je ah, sais pas da nga ma ne ku ñu condamné woon est mos nga ko dégg. mosul am. ñu dégg ko on ah, était tellement tax mënul mosul am. Uh-huh. loi sens. loi dafa mel ni yow da nga am pap am mooy dox ba si yow ba si dafa am ADN. loi bu mu doon dafa am ADN dafa am fu mu jógee am na loi yoo xam ne. il trois siècles la woon di dem di dem ba ñëw Sénégal tey xam ngeen loolu loi loi doo ñëw lire rek xam ko déedéet da ngay xam ADN am maamaati maamam pour mën ko comprendre <laughs> kii diri la boo xam ne ay temps colonial la nekkoon si le code d'instruction criminelle français ñu koy répété di ko répété di ko répété di ko répété ba tey daf nga ne yow doo jeune par rapport ak man moo neexee ma ne jeune nga si doo ko weddi man li mu pire la <laughs> bu ma toogee borom quarante ans quarante cinq ans cinquante ans barke ma la mujjee dama naan xale yi c'est là cinquante ans c'est ñoom bu ñuy wax dañ naan paa yi luy jeunesse jeunesse kañ lay commencer jeunesse kañ lay jeex lan mooy jeunesse pour man jeune nga magistrat yi àtte yëpp tey su ma taxawee seen kanam ay jeune lañu sa bu ñuy wax man dañ naan grand bi wala pas bi quand fait une loi si yooyu ay âge doo gis délit bu mel nii France mukk corruption de la jeunesse lan mooy corruption de la la jeunesse mooy lan mënuñu ko dugg si concept de droit temps colonial la nekkoon di daw ba tey te xamuñu sax lu tax xëy suba fuyee ko rek gis ko. génne ko génne ko quand fait une loi comme ça. supposons qu'on pense jeunesse ñu pense jeunesse dañ naan quelqu'un qui a moins de 21 ans wala ñu ne quelqu'un qui a moins de 18 ans wala ñu ne un quelqu'un qui a moins de 14 ans wala un jeune qui a moins de 15 ans on fixe l'âge dans la loi pour énumérer pour établir le délit la faute on dit pas jeunesse kuy jeunesse man mi am 80 ans tey borom 50 ans yëpp xale la ñu sama kanam. mais dans la loi. fixé nañu bi. ban âge. moins ans. moom ñaataat la am. kan. major majorité dix huit ans la ak ku majeur am dix huit ans kañ nga doon jeune majeur jeune la moo tax ma la ay loi tubaab la yoo xam ne ba ba mu fi nekkee kenn xamul loi lan la. donc c'est une loi obsolète. c'est des délits obsolètes c'est des délits irrationnels c'est des choses qui doivent pas exister dans notre société sañ naa ko législateur la aussi bu ma neexee ma ne délit bi waru fi am loi bi waru fi am yow tam sañ nga loolu sa dëkk la. léegi nag kay wote ka nga fal mu woteel la lu ko neex mu wote ji. alors ka lu ko neex mu wote. pour ñu pour ñu pour ñu avancer. ma récapituler donc ma récapituler ma récapituler. façon ba ñuy dindee. benn benn la ñu yem de. façon voilà façon façon ba ñuy assemblée nationale tey. benn la la wax. assemblée nationale mën na suspendre. li nga xam ne moom mooy justice jugé yëpp les procédures l'Assemblée nationale mën na ko arrêté mën na ko mën na ko arrêté mën na ko arrêté alors il suffit donc politiquement lan mooy conséquence u li nga conséquence am seen conséquence mooy jàmm ay am si réew mi jàmm ngeen bëgg man jàmm yoonu jàmm la voilà non non waxuma yoonu jàmm c'est-à-dire au vu de li nga expliqué yenn incohérence yi yenn incongruité yi quand des politiques disent que c'est un pro c'est un procès politique donc euh, dont l'objectif est de nuire à un, à un adversaire, quand de l'autre côté, on di que la justice euh, est, est, juste et équitable, euh, la justice a dit le, a droit, yow maître lan la lay inspiré. ban appréciation nga ci am. man nee nga fii politique la mhm. yaa ko bind wax ko. Mhm. mais su may wax man ay affaire justice yi. politique bokku ci uh-huh. malheureusement c'est mon ambiguïté uh-huh. man mënumaa faral nit ba tekk ci kaw justice mënumaa politique ba teg la may politique ci kaw justice uh-huh. loolu moom du ma ko def sama dund c'est mosuma ko def je sépare bien les domaines tant nag quoi que ça euh, li ma bëgg wax mooy ku nekk sama tante daan wax ne ku am sa till nandal meew <laughs> mooy ku nekk fa nga far da bomb rek sa fa nga far ku nekk fa nga far da ngay bomb rek man li ma dégg mooy xëy naa suba dégg ne am na benn femme bu porté plainte benn nit ne ko dag maa siif dag maa bëgg a rey ñu topp kooku histoire di am si dëkk bi nag si kooku homme politique la neex naq di homme politique la c'est fi ñu toll léegi léegi léegi léegi léegi léegi gis nañ ne kooku vie ak situation ak na muy dundee ak na mu mel ak la mu yaakaar ak lañ ko yaakaaree ak dëkk bi tam li fi nekk sa jiitu ko fi bu ñu boolee loolu yëpp moom si boppam étincelle la étincelle étincelle astafurlah étincelle wala benn allumette allumette la boo xam ne boo ko taalee bari de poudre bi ne Sénégal mën na exploser parce Sénégal am na ay problèmes les problème du Sénégal sans lui ak moom ou pas le Sénégal a des sérieux problèmes des problèmes écologiques des problèmes d'emploi des problèmes de nourriture des problèmes de des problèmes de des problèmes de neex naq moo fi ne moom le président di jéem a résoudre mais problème yaa ngi fi allumette bi nga xam ne nag boo ko taalee mu explosé saa yu tàkkee rek <laughs> baril bi explosé seetlu ngeen ko yéen itam nag y mhm. lien de cause à effet mhm. saa yu allumette boobu tàkkee rek baril bi explosé waaye ngir yàlla doo fay allumette boobu boo bañee bari bi explosé ba beneen explosé ba beneen explosé fayal allumette boobu am nga temps wu taalal beneen. mais duñu déshabiller la la la y a pas un risque que ñu décrédibiliser la la la justice que ñu déshabiller la la lan mooy déshabiller la justice. Ah. lan mooy décrédibiliser la justice loolu waxu lan la. mais les juges savent parfaitement qu'ils doivent obéir à la loi décrédibiliser mooy lan xanaa kon assemblée nationale dañ koy décrédibiliser moom tam. L'Assemblée nationale est là pour prendre les lois et les juges son là pour appliquer, obéir à la loi. Et les juges le savent. koy décrédibiliser moi j'ai obéi à la loi j'ai fait mon travail la loi est venue l'enlever ñaata loi ñoo dindi affaire de justice xam nga. loi Ezzan. et alors lu mu décrédibiliser justice baa ngi fi ba ngi wax wax loi d'amnistie alors justice baa ngi fi ba tey. Mhm. lan mooy justice bu décrédibiliser crédibiliser décrédibiliser. mais peut-être que justice boobu euh, génne une condamnation que vous une, une loi euh, condamner nit à partir d'une loi que vous considérez comme étant euh, obsolète. ma xaaral ma xool leneen at yi mm-hmm. am na benn nit xamuma turam nag fàtt naa trop boo xam ne dañ dañu waxoon ne dañ ko jàpp dafa jël camion def si ay faux médicaments yu kenn xamul ñu jàpp ko tëj ko mu def appel. xam nga cour d'appel àtteegul woon président de la république gracier ko. xanaa kon moom dafa décrédibiliser la la république parce que le résultat est le même. mais ça a fait un tollé hein. ah mais le résultat est le même est-ce que la justice est décrédibilisée man question boobu laa posé. tollé moom mënuloo tey jii Sénégal nga sa kawar yu rafet yi boo génnoon mu def tollé mais ñu Sénégal tollé rek fi nekk ah fii dëkku tollé la loo nit ñi talatuñu liggéey lu ñu wax la wut. nit ñi talatuñu liggéey nit ñi duñu liggéey dañuy ut lu ñu wax. waaw léegi parce que tam baril de poudre boobu ak chômage bi fi nekk. Mhm. nit ñi amuñu perspective d' avenir moo tax il faut ñu wax. coow rek léegi maître. Euh, dama bëgg ñu dem euh, il faut décider. bëgg ñu dem ci question. faut décider assignation à résidence ñu génn ci dossier boobu donc dossier boobu moom euh, leeral nga ci lu ci bari et l' assemblée peut voter une loi d' le président de la république. qui va arrêter la république le gracier tout de suite. parce que defal na ko waay jooju ma nettali. defal na ko kan. borom euh, camion boobu le droit de grâce comme que defal na ko ki nga xam ne def na appel. mais il faut que procédure yi jeex. déedéet moom gracier nit la. nit la ñuy gracier. waa mais président est-ce que mën na grâce am mën na intervenir léegi. bien sûr defal na ko léegi nii teelul président de la république ba muy gracier waa jooju yoroon camion médicament yi man sama thèse scientifique juridique mooy. waru koon def amul droit def ko. parce que y' mhm. avait appel en cours mais def na ko mu appliqué ko. mais da da nga bëgg mu violé mu defaat même chose à l'époque man mu yooyu mhm. soxlaa ma daal def na ko mais comme que def na ko à l'époque sawee waa jooju na sawe nañu saweel Sénégal tam si histoire. ah nanu lancé yéen xanaa bëggu leen solution du solution nga may nga nga may doyee. man li ma jaaxal mooy nga baal ma de soxna si da ma ne da ngaa bëgg ku proposer ay solution mhm. waaye ngir yàlla. man ay solution lay proposé ñëw ma waxtaan si bu dee waxtaan kese rek mën nañ wax boo ëllëg dem suñu yoon man luy faj feebar bi laa wax docteur bi nag bu ko neexee mu ne faju ma sañu ko du sañ na ko bu ko neexee mu ne nii lay fajee du sañ na ko man piqûre bii laa ko proposé nee naa la mooy sama xarit mooy sama mbokk mooy sama waay sañ naa nag ne ko bii piqûre laa la proposé mu jaar assemblée nationale koo def mu dem assemblée nationale ñu dindi lii yëpp. wala mu utiliser son pouvoir de grâce waaye jooju dem yoonam. wala mu jël pouvoir au président de la république mu gracier ko tey na mu defee waa waaye jooju nga xam ne kenn dootu xalaat ne dugg nga prison doo da ngay dugg ak doo dugg wax ji yëpp jeex na. day ñëw wax du ñëw mais mais mais kon le dialogue peut être utile est-ce que le dialogue ne peut pas euh, ne peut impulser maa ngi dialogue ak moom fi mu nekk mu may dégg su mooy dogal soxlaaw ma cinquante personnes. yow damoo ci dialogue bële. ban dialogue. dialogue euh, politique nationale bi. d' ah, non wu ñu ma si. ah invité wu ñu la. déedéet man mais ñi nekk ci dialogue bi tey est ce que mënuñu proposer. ces pistes de solution là au mais li ma wax mu ngi koy suivre xam na ne dundooyee toog fii <laughs> mooy sama waaye mooy sama xarit xam na ne maa toog fii c' est li may wax mu ngi koy suivre soxlatuma benn dialogue pour mu dégg ma maa ngi dialogue yeex moom fi ma nekk baril de poudre bi ñu toog nga xam ne allumette bi saa yu tàkkee dëkk bi exposé ñetti yoon ñeenti yoon yéen a ngi seet solution bi. kay naan waaw ki naan déet ki naan jamaaji ki naan jaxase man bokkuma si loolu yëpp dama ne pour dëkk bi bañ a tàkk pour allumette bi bañ a tàkkati bu fekkee ne jàmm la ñuy soxla ñun mooy borom réew mi si wax si wax parce que réew kenn moomu ko mais euh, habitude bu ñuy tàkk tàmm di wax la mooy président wu réew mi jàmm ji ñu soxla moo nu ko war a jox ñëpp wax nañ ko wax nañ la ko démb fii ne jàmm ji ñu soxla moo nu ko mën a jox naka lañ ñu koy joxe kenn waxu ko man moom laa wax dama ne na dàq na na appeler à l'Assemblée nationale en urgence jox ko mu éliminer député euh, euh, euh, délit boobu wax ji jeex na waa ji féex na wala mboog wala mboog mu gracier ko bàyyi ko tey affaire am wax ji jeex na. ñu jàll ci leneen. waaw waaw bu ko deful nag ah sañ na ko mooy président de la république cëram la mais man sama cër mooy ma ne lii laa xalaat lii laa proposé léegi. serviteur euh, bu baaxul nañu sànni fële. solution la boo xam ne. Euh, man wax sama bos.